Ramadan a ngi weeru uh-huh. yërmande uh-huh. Ramadan weeru njëggale Ramadan ngi weeru yërmande Ramadan weeru njëggale jigéen ñi wuy si leen woote mag ñi mooy jaamu Yàlla te léegi mën ngeen a tàmbali ne kuy niirantoo kuy kii yéen yéen ñaar yi ngeen. Mouhamed. waaw nga jàpp seen Tawfekh Production. day si day teg ay épisodes yu macha allah yu mel yoo xam si day jàngal si wàllu dina ko sax. ah ki ma cee xam tuuti. papa sonnoon si koor gi. koor gi ah koor gi sonn nañu sax de waaw loolu sax waaye muñ rek ndax suñu borom moo ko dogal si ñun moo tax. koor gi nu mu métti yàlla wax ñu woor. waaw suñu borom de moom moo wax ñu woor ndax dafa wàccee alxuraanam. ne yun saa sallam yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laalakum tattaqun mu ne yéen ñi gëm yàlla man seen borom maa dogal si yéen ngeen woor comme ni ma ko dogalee woon te ñu njëkk ña amaana de kon ngeen ragal yàlla kon koor day tax nga ragal yàlla day tax tamit sa iman gën a yokk loolu de moo tax yàlla dogal ko si ñun ndax c'est comme ñu dañ naan woor ñun tamit dañuy woor saa bu yor ñëpp war a woor képp julli da ngaa war a woor kon nag ku amul benn gàllankoor dangay woor mu neex nga woor mu naqari nga woor di ko muñ nag ndax da nga ci am tiyaaba ju bari loolu moo tax. waa papa. Mhm. ki nga xamante ne nii dafa woor. Mhm. di nelaw di nelaw ba ngoon na koor. ku di nelaw ba ngoon jot. waaw ah am na koor de mais nag loolu moom dañ ko sip te tamit ah kenn rafetlu ko ndax bokk na si weeru koor maanaam tiyaaba ji si am ju bari boo nelawee man mën na laa raw ndax ni ku nekk boo nee jullit weeru koor bu ñu da war a profité am ci tiyaaba ju bari. waaye ne woor nag nee nelaw ba ngoon jot li nga def am nga koor waaye dañ ko sip te xamal tamit tiyaaba ju bari raw na la tiyaaba ju bari raw na la sax si koor gi ak ki nga xamante ne dafa am bor ko fay ko ba koor gi ñëw am na koor tamit ah, koo xam ne daa am bor weer koor koor gi ñëwaat ba waaw am na koor de am bor weer koor fayut ko ba koor gi ñëwaat kooku de dana woor weer wi nekk nii te bu weer wi jeexee dana dana fay bor yam yam amoon te bu koy fay day lele lele mooy saa bu wooree ba ngoon jot day génne kilo mbur joxe ko loolu sariyaam moo ko def pour pour xupp ko daal su ëllëgee du ko defati ndax loolu si sàggan la bokk am boor weer koor onze mois fayoo ko ba weer koor ñëwaat fayoo ko si sàggan la bokk. ak mère yi xamante ne dañoo màgget a màgget ba amatuñu kàttan ñooñu mën nañoo woor. subhanallah ñu màgget wax ne ñoom seen kàttan mooy tuddee ñu woor. waaw mooy moo xam ki màggat la moo xam ki nga xam ne dafa am mm, xeetu feebar boo xam ne bu feebaree su lekku daa am problème wala muy mar su feebaree su su su wooree mën nag indi problème mën na sax génn àdduna ñi ñëpp duñu woor waaye nag si si suur si fani yi nit ñuy woor ñoom saa bu doog jotee dañuy génne kilo mburu jox ko ñuy woor mooy mi wala ki feebar ba muntu muntu woor wala ki nga ne ni maanaam dafa am feebaru mar daal xam ne su su su waree naan bu toogee dix mille naanut mën naa dee kooku moom du woor moo ki màgget waaye saa bu ñu dogee dañuy génne kilo mburu jox ko ñu woor ñoom loolu mooy seen ate ndax munuñoo woor moo tax jërëjëf sax hmm. ndax jàkkat naa ci lu baree baree bari. Ah, noonu la noonu la nit moom maanaam boo doonee ndaw di jàng da ngay laaj lu bari ndax bokk na si ki nga xam ne nii daa daa feebar sax feebar boo xam ne maanaam du feebar boo xam ne nii mënu ko tee war waaye jamono ji mu feebaree ñu ngi si koor gi waaye su mën naa wér nag bay wooraat waaye jëmmi feebar bi feebar ci koor gi moom mënut a war ak kii tukki ñoom ñëpp wax nañ ne fan yi ñu dagg noonu dañ kaa war a lim damaa feebar ci koor gi feebar bu métti fan yi ma feebar noonu mënumaa war dama koy compter su ma wooree ba koor gi jeex ma fay ko même même ki tukki sax wax nañ ne bu sonnee ci tukki gi sunnaal na ci moom mu dog waaye bul forcé mhm. ah, noonu la noonu la am na solo am na solo de laaj daa baax laaj ndax ku laaju doo xam ne borom moo ko wax mhm. fasalu ahla zikri in kuntum laa ta'lamuun mhm. kon bu ko defee ngeen gën góorgóor rek comme ni nga nit ñi waxee képp ku am sa njaboot buñ tolloo fii da nga leen soññi ndax soññ gi leen soññi moo war a fi ñu dem di bàyyi xel ne ñun kat am na lu ñu war te mooy lan dañoo ne si diini islam islam boo si nekk ne lépp lu mu warlu ak yow wala loo war la moom danga danga koy def te mooy lan lim tare nga ba ko lim nga def ko xam ne kat adduna kan moom dañ fay nekk rek waaye mbir la moo xam ne luy jaaxle doon mooy li ma yàgg li ma yàgg di wax gone yi rek nan leen xam moom xam waa adduna moo ko gën ndax xam adduna amul solo adduna xam ko amul solo da fi dem ba fi rek wa ilaa mu boo xam ne waa adduna da nga mën nekk ñoom nekk gu rafet doo leen tooñ doo leen ameel àq te tamit doo tooñ sa sa borom tamit ndax bokk na tooñ nit dëgg-dëgg dëgg mooy xamoo yow loo seq ak moom xamoo yow ban devoir nga war a sa moom boo xamul kon mën nga xatoon te doo ko yëg te adduna ñàkk solo gi yàlla wax na rasul bëri ay yu bëri sax su ngeen dégg maanaam mataan hayatu bu baax toppatoo seen njàng mi lu njàng mi neex neex ak lu métti métti xam leen maanaam lépp lépp lislaam mu ngi si biir ngeen bañ a sàggani seen bopp nag loolu laa leen dénk bu baax baax nag moo doon a ngi weeru yërmande